dal leen ak jàmm dañu koy dooree mariage bu royal ki nga xamante ne bi moo di Arona Benga ñu miinoon ko ci série Cœur brisé Arona Benga mi nga xamante ne bi moo nekkoon rek série Cœur doon fa jouer bu am solo gis nañ ko fan yële passé mu daal di takk soxna soo xamante ne bi ca bitim réew la ko takkee soxna si nag moo ko teeru aéroport daal di ko ba mu indee ay fan lañ ci teg rek mu di ko defal ab mariage boo xamante ne bi mën nañu ko woowee mariage royal ci kanamu ay mbokkam ay jegeñaaleem ak ay xaritam wax ci coowal Bijou Ngoné ak Mbathio Ndiaye Bijou Ngoné day sunu ay naataango doon interviewé mu wax ne musul bëgg a wax sax ci coowal Mbathio Ndiaye waaye nag li am ba des rek mooy Mbathio day kenn la koo xamante ne bi na mu doxale digganteem ak moom lii rek moo ko metti waaye nag la nga xamante ne bi Mbathio yëkkati woon na ko yëpp di ay kàddu dara amu ci ndax it la boo xamante ne bi commercial ba rek daanaka Mbathio mënu koo fay bi ju ngoone mu dolle la mu ca waxaat mooy kii di Mbathio Ndiaye amul dara lu ma yaakaar ci moom moom moo yaakaar ci man ndax ki nga xamante ne bi dama ko fekk ci kàmb daal di ko génne ci kàmb dimbali ko sang ko rag ko ba Sénégal yëpp koo teg ba tolloon na fi ay jamono yoo xamante ne bii dama daan xeex di rayante ndax Mbathio Ndiaye fépp foo xamante ne bii rek daan naa ko fa bëgg a invité dañu naan ma déedéet ndax it nag image am méngoowul ak sunu ay plateau may def lu nekk di def sacrifice bu nekk ma daj ko ngir Mbathio Ndiaye Mbathio Ndiaye nag comme moo ma mën a plainte man Bijou Ngoné Dey yàlla noppi na ci sama jëmm ji li am ba des nag mooy am na loo xamante ne bii ku ma cey woo du ma la si fekk si ndax man Bijou Ngoné maa mag loolu maa ëpp classe loolu te itam maa ëpp personnalité loolu ndax koo xamante ne bii dëgg-dëgg moom day moo yaakaar ci man waaye man yaakaaruma ci moom dara ndax it nag xamante ne bi sama dëju baay nga ñëw ba nga ñëwee maa la conseillé ne la defal dara jéemal xool ci loo dugg ngir mën caa am sa teraangay bopp Bijou Ngoné mer na sax bay wax naan kii di Mbathio ba mu ñëwee ca dëjub sama papa junni la ma ndawtal tey man ba muy anniversaire or laa ko takkal kon nag kookile amut lenn loo xamante ne bi yaakaar naa ko ci moom au contraire moom moo yaakaar ci man waaye nag yëf ya na mu amee na mu ko waxee na mu génn ca presse ba ak di ca wax ci li ciy dëgg mooy def na jëf ju ñaaw tey nag jëf ju ñaaw jooju nga di ca pare daa di pare ci mbaaco bu ma ci laajul woon duma ci wax te itam naru ci wax ndax man maa mag loolu wax ci mariage Amina Potek Malick Naar mi ñu ne bi Malick Naar day ma ngi ci doon wax di wax ak as ndaw soo xamante ne bi ab américaine la la mu doon wax ak moom mooy erreur bi nga xamante ne bi moom laa def ci sama àdduna mooy bàyyi sama yaayu doom waaye nag dinaa fexe defaat la tout ba mu dellu siwaat ci samay loxo boobu vidéo ka leen doon vidéo daanaka xamuñu waaye vidéo boobu tas na ci réseaux sociaux yi ko maa ngi dégg turu Amina Poté Amina Poté daf ne ko Amina Poté ab célébrité la li lee tax ma daal di sëy ak waaye nag dëgg-dëgg réccu naa li tax ma daal di bàyyi sama yaayi doom bo vidéo moom la ñu jël daal di ko partagé tas ko fépp ci réseaux sociaux yi ñit ñi di laaj naan Amina Poté ak Malick Nar ana lan mooy xew dañoo tasam tasuñu influenceur bi nga xamante ne bi moo di Adamo génn na ci réseaux sociaux yi wax ne Amina Poté ak Malick Nar dara nekku ci ndax joxtu bi may wax ak yéen Amina Poté ak Malick ña nga nekk ca France Amina Poté sax dafa feebar waaye Malick Nar ma nga nekk di ko taxaw liwit téwóor mooy ay jege ñaale Malick Naar ñoo dem rek ca ka nga xamante ni bi moo di kamu amal doom di ko jaxaseeg moom lu ne ñu wax ko fa daal di yàqub deram ba ndaw sa génn di wax ak Malick Naar Malick Naar ay jege ñaalem dëgg-dëgg ñoo ko war ci mbir mi le waaye nag digganteem ak Amina Poté amul lenn lu ca nekk ci kàddu yi Adama buñ ca sukkandikoo daal mooy sëyëb Amina Poté ak Malick Naar lu coow li bari bari tey ji lañ gën a neexoo sëy ba tasu lu ci mën di doon mooy vidéo ba daal ma ngay wër rek ku nekk di ci def ay commentaire wax ci Adji mi ñu gis ci ab vidéo muy génn rek di fecc ab son boo xamante ni bi du ma baale la tudd mu ciy défilé wu ak di wane boppam moom Adji Sarr mi nga xamante bi gëjoon nañu koo gis ñu ko fi déggee ñu naan Adji Sarr dafa amoon ay problème ak day waaj a xaru boobaak léegi tekk tekkaaral la mayee kenn gisu ko démb la defaat ab vidéo boo xamante ni bi daal ma ngi cay fecc ak di ci wane joie de vivre moom Adji Rabi Sarr waax ci ngénteel Zarko soxnaam di mat yi Zarko day moo doon ngénte jabaram ngénte la nag nekk ngénte loo xamante ne bi mën nañ ko woowee itam jotaay bii rek xaritub Zarko nga mbaa ngay mbër rek teewoon nga ci loolu la ngeen te ñu ñëw rek def ay témoignage def ay seede yu rafet ci ki nga xamante ne moo di Zarko ak soxnaam ñu nemmeeku fa nag ambiance boo xamante ni bi daanaka ambiance bu fatt taraj la woon waax ci Baaba Maal mi génn def ab sortie ci coowal Maimouna Ndour Faye Baaba Maal nee na li nga xamante ne bii rek moo am ñaawlu naa ko ba fa ñaawlu yam ndax nag journaliste yi ñoom ñooy suñu ay gët tey tam ñoom ñooy suñu ay nopp kon nag journaliste yi dañoo am droit protéger leen kenn waru leen a laal waxuma sax jigéen ji mu nga jàpp ko moo di l'international Baba Beydimar wax ci ab dossier bu yaatu bi nga xamante ne bii ña ko def rek mooy sunu ay naataango di ñoo yu bëri yoo xamante ne bii ñoom daal fa nu tokke soxna moo di bitim ne bu njëkk dañoo nemmeeku woon sunu star yi maanaam jigéen yi nga xamante ne bi ñoo nekk ci Sénégal ñoo daan sëyeeg rek ay moodu moodu waaye fi mu nekk nii góor ñi ci boppam ñooy tànn rek ay soxna yoo xamante ne bi ña nga ca bitim réew di leen takk biñ ci mën a nemmeeku moo di Marlo bu famille sénégalaise mariage ub Duudu mariage Arona Benga ak mariage ub Padros Mbaye waaye tam mariage ub ki nga xamante ne bii rek Modou Abdou Kebe bu séeri Karma ak Mouhamed Alla Diop di doomi Alla Diop ñooy ñëpp ku nekk rek daal di takk soxna soo xamante ne bii yaa nga Europe lii nag di ab tendance bu bees boo xamante ne bii sunu ay célébrité ci boppam moom la ñu xewal ana lan moo waral mbir mu ni mel ndax nag dañoo bëggatul takk jigéen ñi nga xamante ne bii ñu ngi Sénégal wala jigéen ñi nekk ca bitim fi mu nekk nii ñoo bëgg sëy ak góori Sénégal Savon ak Mamy Cobra daanaka ñaari xarit yi moo di moo di Mamy Cobra amaat nañu problème problème bañ am nag ak Mamy Cobra ku bi moo di Mame Savon ak Mamy Cobra ñoom ñaar ñu daal di féewaloowaat ndax nag Choco dafa génn rek dafa génn rek di wax ne kii di Cobra yàgg naa ñëw ci man Choco no stress di fi yàq Mame Ndiaye Savon jaay savon sorti ba nga xamante ne bi def na ko ma ngay wax rek ne man daal amatuma xarit amatuma àndandoo amul kenn koo xamante ne bi daal fi mu nekk nii dama lay considérer ci sama dund sama liggéey daal ci laa focus fi mu nekk nii àndandoowuma xaritoowuma te itam dem leen teew ma fekk leen teew ndax nag jigéen laa te itam xale laa damaa toll ci liggéey fi mu nekk ni war a focus ci sama liggéey wax ci Ousmane Sonko Sadikh Top mi génn wax ci moom Sadikh Top mu Pastef nee na day li ko jaaxal mooy tekk tekkaaral ak Ousmane Sonko mi ngi bëgg a jaaxal askan wi Ousmane Sonko yàgg kin dégg ko mu yëy yàbbi ci menn mbir adduwul deful benn yoon te itam tekk-tekkaaral googu daal jaaxal na ma man Sadikh Top wax ci Macky Sall ak Ba Macky Sall day fi mu nekk nii waa APR yi ak waa Benno Bokk Yaakaar ña ngay wax naan ay pexe la ñuy lal te pexe yooyu nga xamante ne bii ñu ngi koy nas liñ ci jublu mooy fexe ba Macky Sall te itam ab mandaam di jeex ba noppi itam ñu daal di tasaat carte yi bu ko defee jéemaata wut beneen candidat boo xamante ne bii wuute nag Amadou Ba ki wax lu ni mel Souleymane Ndiaye directeur SAPCO nee na Amadou Ba nekkul candidat Benno Bokk Yaakaar ndax nag candidat ba nga xamante ne bi mooy Amadou Ba ci élection ya mu nekk woon candidat mooy élection yi waroon a am le vingt cinq février te yooyu la élection fi mu nekk nii doxal nañ ko kon nag ñoom waa APR ak waa Bennoo Bokk Yaakaar Amadou Ba nekkatul seenub candidat tuus ak agent bi yow lan la. yaay problème moo am. j'en ai marre doublement marre. yaa ko wax. waaw mais demal sa kër baay. dégg ma sama kër baay. ba dara du woon dara man ak na ma njaay. xale bu tuuti jógee fee xamul li ma daj. yow yaay jiite jàmm ji. jàmm am jiite woo jàmm ji du ma puus du ma paas du fay du tas fii laay toog di leen lëjël mel ni téere ja seen kanam. mag nag bu amee fulla moo ko may boppam. da nga génnoon wuti ay cumukaay ma génne wuti ay cumukaay. bëgg naa lii de de yow nee naa la maag yow fekk suuluñ la duma la bàyyi. l'erreur vient de moi léegi li mu ñaan mooy. Mor sax yemul yow yaa nga